asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi bienvenue sur la scène de l'élégance Kër Ndaanaan TV gis nañu tey dégg nañu nouvelle boo xam ne depuis démb nouvelle bu métti fii si diwaanu Tingéej waxuma sa Sénégal kese mais adduna bi yëpp donc euh, kooku mii di Aline Mar mooy maire de Rufisque Ouest moo nekkoon maire de Rufisque Ouest yàgg na lool si nguur mi mais macha allah gis nañu euh, askanu Rufisque yëpp ñoo ngi kii nii mais xam naa rek moo tax tey ñu wàcc sur le terrain fas yéene jàkkaarloo ak askanu Rufisque nan la gisee Euh, kooku mii doo xam ne maire bi nekkoon na fii nii pour ñu mun si jog si moom ay témoignages xam naa rek dañu dugg rek xool. salaam. waaleykum salaam. tur bi ak sant. man maa Ramatoulaye Lo. Ramatoulaye tey nag dañu ñëwoon fi tey nag dañu ñëwoon fii gis euh, loo xam ne dëgg xibaar bu métti métti na lool métti na si askanu Tëngéej mais waxuma Tëngéej sax mais si senegal yëpp. wallaay Alioune Malick dafa doonoon suñu frère boo xamante ne bii moom vraiment kenn mënu kaa waxal dara du nit ku social la woon nit ku baax nit ku bëggoon mbokk. te soo gisee tamit dégg naa yàgg si nguur gi te loolu kese moo seede maanaam baax baax. waaw waaw loolu moom dëgg la moom moom fi toogee ba léegi day tey la fi mas a jokk te yàlla soxla yàlla nag bu soxlaa moom ku soxla ñàkk. waaye nag wax dëgg yàlla ku baax la woon daana jàppale nit bëgg na nit bu la gisee dalay ak yiir bëgg nit ñi faale nit ñi safoon nit ñi loolu moo tax fii ni mu fi toogee ban yàlla jëlee ko fi mu toogee fi noonu ndax nit ñi nag kenn moomu leen boo bokkulee nit ki dara moom mu toppala rek wax dëgg yàlla am na lu ko waral ala rawatina ak ñi nga bokkal ñi nga bokkal xëj na bu neexee ñoo ànd ak yow bu naqaree ñoo ànd ak yow mais ay jàmbur bu ñu la toppee ànd ak yow am na lu tax ñu ànd ak yow waxuma lu muy joxe waaye lépp loo xamante ne li nit soxla nag bu ko yégee dina ci dugal loxoom bañ na ko ba tëngéej gii am baay jàng amul baay jàng moom lañ ko tudde ndax socialam nan na ko yàlla jéggal te yërëm ko xare ko daw si loolu rek lañ koy ñaanal damay wax mënu ci bari amin amin yàlla na ko yàlla yërëm merci beaucoup salaamaaleykum waaleykum salaam. tur bi ak sant bi. man waree laa tudd sant Guèye dëkk HLM euh, Tëngéej. démb ba léegi nu ngi dund dégg nañu boo xam ne xibaar bu metti dis na si waa Tëngéej dis na tamit si waa senegal ak addina bi yépp en yow koo xam ne fii nga dëkk si Tëngéej ak jëf-jëf baax baax baaxam moom mii di Alioune Mar nan nga ko gisee ak nan nga koy seede bismillahi rahmaani rahim aousubillah min seytaane rajim jëf-jëfu Alioune Mar kenn mënu koo wax àddina bi wër kër képp kenn mënu koo wax ndax Alioune Mar nekk na nit koo xamante ne nit ku baax koo xamante ne ku social koo xamante ne kenn mënul wax fu mu commencé ak fu mu yëg Alioune Mar ñëpp la boole émaale Alioune Mar lu ne def na ko ci tëngéej gi ñu nekk Alioune Mar lu xeetu baax baax Alioune Mar def na ko ci tëngéej gi Alioune Mar dafa dem ba am école boo xamante ne école am la am bay jàng am yaay jàng am am baay jàng amul bay jàng ñëpp la dugal ci école ba muy social day jël ay nit yóbbu sax édicom di jël ay nit di leen yóbbu ñuy tukki suukaru koor kenn xaalew ko tabaski kenn waxaalew ko korite kenn waxaalew ko màggal kenn waxaalew ko tiwaawoon appel yi lépp Alioune Mar daal boo demee ca mairie bi nga xamante ne amul sens interdit sa mairie bi ñëpp lay boole recevoir ñëpp lay boole recevoir ñëpp lay waxal ñépp lay dimbali handicapé yeeg ñii am ak ñii ñàkk ñëpp la boole di def lu baax kon Alioune mënuñu koo fay du dul ñaanal ko yàlla yàlla bu ko dara jiitu fa mu nekk yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla xare àjjana ju baax li mu def ak lu baax li mu def ci dëkk bii dina ko fekk fa mu nekk ndax baax rek am solo te lu baax li mu def lépp lépp dina ko fekk nag fa mu tëdd Alioune Mar li mu am ni ci tey jii si dëkk bii moom moo ko liggéey. tey jii dafa dañoo am lu naqari ba sax mënuñu sax wax jëmm jii fi jógee tey jii dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xaare àjjana def na ci tëngéej loo xamante ne gisuma maire bu ko fi def tëjul ay buntam utul ay garde corps heure boo ñëwee Alioune Mar da ngay ñëw gis ko toog ak moom wax moom mu teral dëkk bi yëpp nag def fi lu rëy nag wax dëgg yàlla mais li fi def ci lu baax man damay ñaan ci kàntanu sama borom yàlla naka ko fekk tey fi mu tëdd tey si barka Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu ko cat jiitu si bàmmeelam ni ku baax la ah du ma si mën a sori waaye dinaa bàyyi sama xarit bi yegg ni ku baax la yàlla ko yàlla yërëm te yéexee ñu. salaamaaleykum ñoo ngi nuyu Sénégal gépp nag di nuyu waa Tëngéej yëpp di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di sant yàlla bu baax di julli ci Moustapha sangu sang yi di nangu dogal sunu borom. bi nga xam ne moom la yàlla wàccee tey jii ci monsieur Alioune Mar monsieur le maire di nit ku baax nit ku serviable nit koo xam ne daal ci dundam lu nu ko mën a nettalil tey bi mu dëddoo àddina mooy rekk defkatu lu baax la defkatu lu baax la def na fi lu baax yor na ay fonction def na fi social rawatina nag xale yu ndaw yu tuut tànk yi nga xamante ne xale amul lu dul jàng ñu tudde ko yaay yaayu koddu maar ku am bay jàng ko amul baay jàng loolu la doxal ak waa Tëngéej doxal waa Tëngéej ci ndimmal ndimmal li foo ko takk weesu na fa monsieur le maire Aline Mar mi ngi ci facture courant yi monsieur le maire mu ngi ci facture ndox yi monsieur mu ngi ci saaku ceeb yi ci biir kër gi ak xeetu lépp lu waaye aajowoo ci biir Tëngéej rek monsieur le maire Alioune dugal na ci loxoom. kon nu ngi koy ñaanal yàlla sunu borom tabaraka wa taala yàlla na yeewoo àjjanay firdawsi yàlla na ko àllaaxira di noflaayam fu mu jëm yàlla na gënal fi mu jóge ñoo ngi ñaan daal sunu mawlaana tabaraka wa ci barke Muhammad Rasulullah yàlla nañu ko fayal ngën gi pay lu ëpp li mu liggéey fii si Tëngéej jërë ngeen jëf merci beaucoup. askanu Rufisque ni ñu gisee maire bi nekkoon na koo xam ne que dafa ubbeeku woon pour ñëpp nekkoon na koo xam ne ki xaalis du ko boole doomu aadama doy toog ni mu yàgg jékki-jékki mu rombal si tal bi yor otaam jékki-jékki mu xàmmee la xaalis tëmpal la ko loolu ñëpp la ko woon loolu dootu këram gi ne nii fermel ko woon. moom daf daan wax ne tëjuwuma nëbbuwuma ku ñëw soxlama ma na nga ko ubbil mu ñëw wax man bu am dëj amee si dëkk bi fii day ñëw yëkk xaalisam na la am taxaw fa bu dee ngénte bu dee dëj bu dee mariage lépp day ñëw teew nekkoon na koo xam ne kii ah, moom maar Alioune Maar nekkoon na maaru ñëpp maaru tëngee jëpp waaw du nëbbu kenn ku gis def na la comme boppam surtout nag nga nekk koo xam ne que da nga nekk kalam day ñëw kalante yow waxante yow làmb poosam na la am loolu moom lu ñu seede la tund waa Tëngéej nag nekk na koo xam ne mënuñu ko waxal dara loo xam ne lii lu ñaaw la biroom fële si maire bi daf na ko daf ñëw ku ñëw ubbil la mu dugg waxaa yow bu dee tànga mu jëflante ko yow bu dee wax bu neex mu waxante ko yow loolu moom ñëpp a seedal nañu ko nekk na koo xam ne kii aussi lépp lu waay xam si lu baax boo ko waxee mu xam ne xel li lu baax la mu ne la a ah, li nga wax de dëgg la waaw waaye dinaa seet waaw fenwul kenn quoi loolu moom seet nañ ko tënkee tënkee maar maaru tënkee jëpp la tënkee jëpp la waaw du nun quartier bi mu dëkk rek ñoo ko moom du jokkul di mu dëkk rek moo ko moom moom famille dafa yaatu famille maar dafa yaatu surtout jokkul kër gu xam ne kër gu mag la ñoom ñëpp maar lañu ñu sant même bi fi mu dëkk fii sax loolu nag daf ko maasaale woon ñu ngi koy ñaanal yàlla nag. ah yàlla moo xam li baax si doom aadama mu def ko waaye yàlla mi xam ne moo xam si lu baax doomu aadama mu def ko yàlla na ko yàlla wanaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla defal dee muy noflaay bi yàlla na yërmande yàlla wàcc si moom loolu daal moom leen soxla wa salaam salaamaaleykum wa rahmatullah doom la doom la baayam bi ko jur ak man mi taxaw noo bokk benn ndey maanaam maar ku amal njariñ la ci jokkul gi ci tëngeej wax duma la jokkul lépp loo xam ne teranga la te yàlla joxoon ko jox na ko moo la suñuy doom yi jàngee école ñëpp jàng nañu ba am bakk ñu ba am njëriñ tey bay mën a yor ay jabar maar bu ñu soñoon mu gungal nu ba sa kanam ak kanam mais nag yàlla moom moom doo yaa moom tag ba ko soxla rek nu ñàkk noonu yàlla mi xam ne moo ku jël yàlla na ko yàlla tabal si àjjana ya maar ma noonu ka ban bu gën a wax dina ñaari fan dina ka du jeex talaanga ba nekkat jofel nag si jokkul jàkki jokkul yëpp xew xew ba nu am moo doon daal doon ka ñaanal yàlla bu dee wàllu dépasse bu la bu la joxee loxo bi loxo bi du ko gis loolu ko am kerse la yàlla may ma la fa yàlla na ko yàlla fayal yàlla tab ci àjjana yi gën a sedd nu xool sedd na nu ñuy xam ne ay mbokkam lañu parce que noonu lay bàyyam noo bàyyam bi ko jóg noo bokk ndey la mën a yem te kii xam mooy Awa Diop moo ko dugal ci politique Awa Diop sama jabaat la may nijaayam moo jël maa dugal ko ci politique ba yàlla dafa am maire doomi ndeyam la waaw doomi ndeyam la moo nag ni eh, ngay ñaanal aw jom mi xam ne moo ko jiitu yàlla na yàlla teew si àjjana gën a seede ñoom boo ko seen àjjana yàlla na ko yàlla def kontaanal ba ko fa kontaanam jërëjëf waay yàlla na yàlla fay leen moom ak eh, ak mbaaxam ak li ñu jàppale waaw ah, si jokkul moom nun moom kii wuñu si moom dara daal amuñu dañu si lu baax rek lañ xamee si moom ak yaatu bu boo mësaa ñëw këram fii si kër gi fii day jéggi na see toog ne ne toog leen ñu waxtaan kaf ree te loolu ñu bari si maire yi amuñu ko mun bokk Alioune Mar nun nun moom nun bokk man bokk man dañ koy ñaanal yàlla yàlla xaaru ko àjjana yu kawe kawe kawe kawe kawe kawe si barke yonent bi bëgg Seydina Muhammad ñëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla xaaru ko àjjana yu kawe kawe kawe si barke yonent bi bëgg Seydina Muhammad ñu jokk leen di di fa lañ yoroo te xamal ko dara daal benn problème boo xam ne nii am na fii ñoo naan allumaan lii allumaan lii loolu di ko ñaanal rek jàmm ak salaam yàlla may ko fa nu gudd yàlla may ko teeru ko si barke yoon tamit ak seen xam xaaral ko àjjana loolu ñu yàlla daal wa ngi leen di nuyu di yëkkati suñu am lu ñu seede rek ci monsieur le maire Alioune Mar nekkoon suñu xarit nekkoon suñu wëlëre nekkoon suñu dëkkandoo bu mën a dimbalee. nit la koo xam ne kii ndimbalam yegg na ci place yëpp ku baax ku amoon njariñ ku neexoon a jot dimbali ay doomu aadama yu bare bare bare bare ba sànq nii biñ koy waajal rek nit ñaa ngi xëccoo foofu ndax lan ku ne defe nga ne yaa gën a yee ci Alioune Mar mu nekkoon nit koo xam ne kii ni ko yàlla defe kilifa mu yor ay ndombo tànk noonu la neexoon a jote noonu la bari woon njariñ tamit te sunu boroom day wax ni ki ko gënal ci nit ñi mooy ki ëppal njariñ ci nit ñi te li nu bëggoon ci moom mooy mu yàgg ak lool waaye nag yàlla def li gën nu gën cee am lu nu neex gën ci am yaakaar muy bés bi mu demee bés bi mu demee muy bés ajuma lu doon ay jullit rafet ci njort lool di ko ñaanal lépp lu mu daj fii yàlla na dajeeg lu kawe njortam ci bat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu nu sañoon te am man-man day yàgg ak ñun lool yàlla xam na ko ndax dëgg la sunu meer la sax waaye sunu waay la yàlla xam na ko wallaahi yàlla xam na ko teraanga yu bari séq na koog noonu yàlla xam na ko ñoo koy ñaanal ci barke Seydina Muhammad yàlla na dajeeg lu kawe njortam barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen ñiy def liggéey bii tamit yal na leen yàlla fay ndax bés yu mel nga ñëw ci di def lu baax di seedaloo nit ñi lu baax loolu yiw kese la yal na leen yàlla fay ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin kon. di nuyu mi yëpp di nuyu waa Tëngéej yëpp di leen masawu di leen di leen jaal monsieur le maire Aliou di ñaan sunu borom yàlla na ko dollee yërëm ko barke maam borom Touba Aliou Mar nag moom man mii wax ak yow. sama yaay bàjjen la si moom kon nag jigéen la mbokk boo ñëwee na ne naa wax si moom te ku génn àdduna moom yar nañu seede ko ñu xool yi gën si moom ñu wax ko ñu ko xamal mooy Alioune ko social la woon social nag ça dit tout social bu ko waxee rek bu ko bëggee firi si olof day xaw a sori lool lool lool lool lool ne fi ne nii boo ko dikkee micro bi mën la wax li ma la wax kon daal man damay yem ne daal Alioune ko social la woon. course sociale la woon c'est c'est l'essentiel yàlla nga taxoon na mu nekk maire maire d'une commune nekk liggéey bu tiis mais xam naa daal a seedaal si dëkk euh, si moom daal xam naa ni ko social la woon et puis ni ko woon quoi et puis ni ko xam ne gaawaloon xam nga waaw man daal loolu laa ko mën a ñaan yàlla mi nga ne mooy yërëm jàmm na ko doolee yërëm yërëm ñu mu ñëpp ñu ñaan Sénégal suñu borom doole fi jàmm defal ko yi diine bi yëpp defal ko waa réew mi defal ko président de la république ak ñu mu àndal liggéey bi yëpp yàlla na yàlla même jàmm yàlla na dolli jàmm yéen tamit waa télévision diwaan ñu ngi leen di ñaanal suñu borom ngeen leen defal ak jàppandal ba ngeen siw comme ñëpp parce que Maam Touba maar mii gaañu sama doomu nijaay sama nijaay Cheybatu Maar moo ko jur lu dëgg donc sama cousin la waaw vraiment jaxasoo woon nañoo moom trop nag parce que moom nit ku bëggoon mbokk la très sincèrement ku bëggoon mbokk très sérieusement tey nag am nañu trop lu ñu naqari ci moom ndax euh, li mu fi jóge yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana jéggal ko rëcc rëccam yëpp vraiment teg ci njaboot gi loxo tey muñ loo ko nit ñi waa Tëngéej tam vraiment ñi ngi leen koy jaalee ñi xam ne ñoom la séqaloon mbirum adduna parce que am nañu njort ci nii vraiment rafetoo loon na digganteem ak ñoom donc euh, noonu la problème bi demee mandat bi tamit gis nañu 2001 ba euh, ba 2024 maanaam xaw ma def na quatre mandats donc loolu su fekkoon defuloo woon Fatou Baba day fekk jóge na fii nii donc loolu yëpp si ay témoignages yi la. waaw xam nga ay mandats successifs population yi di la ko renouveler dafay wane attachement bu population yi am ci yow parce que jafe na ci maire ndax am na commune yoo xam ni benn maire du fa am ñaari mandat donc moom bu mënee am plusieurs mandats ci commune bi mu dëkk. vraiment doon fi maire am na loolu loo xam ne bëgg na ko am na loolu lu mu bëgg a wax kon daal vraiment ci gàttal yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana vraiment muñ loo ko aussi population yi xam ne ñooy ay électeurs am doon ko fal yàlla na ko yàlla yërëm vraiment yéen itam bàyyi leen euh, sàmm ndaanaan TV ba mu bokk doon télévision bu mag a mag à l'instar vraiment de grande chaînes de télévision yi fi nekk yàlla na leen ko sunu borom bi defal lépp fekk ñu fi incha allah. salaamaaleykum maa ngi tudd Abdoulaye Ndione président ASC Ndefane vraiment bi ñu déggee tiis bi dafa am lu ñu metti trop ndax Aline Mar exemple la woon si ku OS ñu ngi koy ñaanal yàlla fa suufu dàggu bu mu tëdd yàlla na ko yàlla xare àjjana ku baax la woon ku oyof la woon man moom sama xarit la woon moom gaa moom sama xarit la woon ñu ngi koy ñaanal daal ñaan nañ deseex moom ñu ngi koy ñaanal incha allah. Eh, te gis nañu moom tamit yàgg na si kii te. waa askanu Rufisque yëpp jooy nañ ko mais tamit Sénégal yëpp jooy nañ ko ak adduna bi yëpp. mais lii wan na la ko tey Tëngéej yëpp ñëw nañ département bi yëpp ñëw nañ kenn desul bu baax mu am solo tey lii des ba sa Alioune Mar bi wan na la jàngal na politiciens yëpp nañ nekk benn ànd ndax lii rek lañ amal nit tey mu ngi nii ñu ñëpp ko bunge vraiment dañ koy ñaanal yàlla am nañ yaakaar si moom incha allah. moom amulul amul mag amul ndaw amul góor amul jigéen tamit ñëpp seede. seede bi benn la déggoo li ma la wax seede bi benn la dé euh, biñ ko déggee démb ba léegi kenn tegul vraiment ñëpp kontaan nañ ñu ngi koy ñaanal yàlla ku ñaan nañu yàlla ko am bés am lii ku am bés am lii vraiment ñun kontaan nañ si lool ñu ngi koy ñaanal yàlla fu mu dem yàlla bu ko ca jiitu daal si bàmmeelam. salaamaaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar boo ay seen defaan di sant yàlla di julli si Seydina Mohamed Rasulullah sallam gën ci mbindeef di ñaanal euh, monsieur le maire Alioune Mar yàlla àtte si yërmandeem ëpp suuf kam dafa ko leer xaar ka àjjana ndax nit ku modeste la woon te modeste yi dafa am solo parce que boo gisee euh, lébu yëpp àndoon ak moom di ko jàppale parce que dafa wàcc wàcc boppam parce que àdduna boo wàccee sa bopp rek nit ñi ànd ak yow. Euh, mësul yëg di mbagam nit ku doon modéré la c'était un modérateur vraiment royukaay la woon parce que dara dara taxul woon mu yëg di mbagam pour rëy nekk nit koo xam ne nitu tëngeeñ la woon tëngeeñ ñoo ñàkk daal mais yàlla yàlla yërmandeem yaatu ne yàlla dina ko yërëm incha allah ndax maar ku amoon yërmande la ku amoon taxawaay ci ci tëngeeñ bi yàlla nag yàlla na dee di noflaayam ci darajay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di leen santaat yàlla bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin waaye di ci jiital inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax suñu borom ci boppam moom moo nu fi indi te ñu ñëpp moo nuy jëlaat kenn par kenn ba nga jeex kii nga xam ne nii nag moom moo nu fi dajale tey jii ñu ñëpp ñu ñëw daje fi ñëw di ko jaale si yàlla dafa dogal muy nit ku baax di nit ku social. di nit koo xam ne nii lépp lu waay ma su soxla ci këru àdduna bu duggee ci noppam faju na nekk koo xam ne nii ku daan taxawu woy néew doole yi la di taxawu itam jaboot yi bu yàlla dogaloon sax campagne jot da ngay dégg jigéen ñi di ko woyal am baay jàng amul baay jàng kon def lu baax rek am solo mbooloo mi fi teew ku ko xool xam ne kii liggéeyal na yàlla waaye liggéey na it ci mbooloo mi ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko ku baax la ku social la ku mën a dimbali doomu aadama la damay faral di wax ne Mbaye Sakh Diop Kora Fall Alioune bokk nañ ci ñi nga xam ne ni bu njàqare masaana taxaw wala xat-xat ñun nit ñi nekk ci ay xat-xat wala nit ñi nekk ci tumuranke bu duggee ci seen nopp faju kii nag moo fi desoon ci ki nga xamee ne ni moom si boppam bu jaaxle amee nga mu réagir ci ni mu gën a gaawee yal na ko yàlla yërëm te jegal ko. président Omar Diop euh, Omar Diop Blinky euh, nekk euh, donc nekk euh, conseil municipal à maire de Rufisque nekk président de commission euh, artisanat ak développement euh, nekkaale aussi acteur de développement fii si gox bi nga xam ne moom lañ nekk muy Rufisque Ouest sur le plan national di vraiment aussi di wax ne tey lii ñu mën a seede si ki nga xam ne mooy suñu maire Alioune Mar c'est un personne exemplaire c'est un serviteur quoi c'est un serviteur parce que un personne boo xamante ne bii maanaam tey euh, génn àdduna bii mu génne àdduna euh, Sénégal gépp yëg nañ ko maanaam borom xol yu baax yëpp yëg nañ ko parce que borom xol bu baax la woon nit ku baax la woon nit ku bëggoon it vraiment li mu nekk woon la euh, ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ay conseil municipal malgré que bokkuñu woon clan politique bu ñu nekk mais tey dafa mel ni ñoog moom ñoo ànd waaw loolu yëpp ci générosité la ak yaatuwaayam ak ak li nga xamante ne nii mooy jikkoom aussi si moom. waaw ah, parce que du du per du personne politique mais personne la boo xamante ne bii maanaam euh, nitu social la c'est une personne sociale très sociale donc Alioune Mar euh, ndawalal guddi la ku nekk yaakaar nga ne yow yaa ko moom ku nekk yaakaar nga ne Alioune Mar c'est la loolu yëpp li ko waral rek mooy mbaax la rek parce que lii la ñuy ñaan yàlla si doomu aadama nit njariñ rek lañ koy doyee te Alioune Mar amoon na njariñ vraiment si dëkk bi nga xamante ne bii fi la nekk maanaam ñi mu nekkal jéppiwuñu ko kontaan nañ ci moom ba nga xamante ne tey ku nekk moom ngay roy pour jéem mel ni moom parce que yor maire yi ba génne àdduna jafe na mais ku ko yàlla dénk aussi donc am na noo parce que moo tax loolu mën a nekk ci yow loolu euh, dañ ci dañuy wax ne rek lii dul si nag bi yëpp xajul ci cin li mais aliment daal nit ku baax la aliment fa mu jëm yàlla na ko gën a fa mu jage yàlla na yàlla koy porté si kawam vraiment euh, ummaw conseil municipal yi yëpp vraiment gërëm nañ ko sant nañ tëngee gépp gërëm nañ ko sant nañ ko ay mbokkaam yëpp gërëm nañ ko sant nañ ko donc yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana yàlla yàlla ooy pasifika ñu ngi leen di jaajëfal yéen tamit parce que xam nañ ne démb ba léegi toogu leen taxawu leen ñu ngi leen di gis mais seen taxawaay yàlla ko yàlla yàlla ko yàlla sàmm yàlla na yàlla barkeel ba ñu ngeen soxla si seen télé yàlla defal leen ko si kattan suñu borom salaam maa ngi tudd Diego Ndoye nekk conseil municipal au de la commune de Rufisque Est nekk président commission artisanat culture et tourisme nekk aussi conseil départemental euh, comme directeur des services techniques waaw ñëwoon nag euh, bokk ak waa Tëngéej jëpp le département national international TIS bi nga xamante tey jii ñun moom la ñu am muy euh, le maire Alioune Mar su ma jumloo moo ngi si ñeenteelu mandaam maanaam nit ku jub nit ku oyof nit ku sociale bi nga xamante ni moom lañ koy étiquetal tey ji moo dem et pour vous dire aussi ah, mooy Tëngéej ñàkk na man li ma si wax du bari parce que c'est un premier voyage en 2016 maanaam moom ñoo ànd te dañ naa nit ki pour nga xam ko il faut nga àndax moom génne c'est un premier voyage ax moom suma ma jumlee Portugal la jógee Portugal dem Enébomo dem aulnay sous boi ñun ñu ànd ko si délégation boobu ak l'ancien maire de la ville muy Daouda Niang maanaam daal di leen nit ku baax dem na nit ku baax dem na jàpp leen ne Tëngéej ñàkk na Sénégal ñàkk na wasalaam tey xol yi moo fees quoi. on a fait les bancs ensemble mais Rufisque a perdu Rufisque ñàkk nañu doom joo xam ne kenn mësul ko am auteur pionnier promoteur social vingt ans de magistrature un contrat avec les populations de sa ville de sa commune mais de Rufisque tout entière vraiment ona a perdu yàlla na ko cent pour cent borom teeru teral ko sa àjjanay firdawsi loolu rek laa amoon. waaleykum salaam. tur bi ak sant. Euh, Modou Diop Thioune conseiller territorial leader de pêche écologique coordinateur du comité national dialogue social pêche aquaculture ressources offshore. xam naa da ngay wax rek say témoignage si maire Aline Mar. Euh, Aline ñëpp la ñàkk ñëpp ñàkk nañ ku baax maire la boo xam ne général citoyen sur Mar. il était humble nekk ci service de développement bi di mbokk ñëpp avec aussi un talent hein une compétence et un management bien engagé il faut rendre tous les hommages et tous les honneurs à son rang parce qu'il aura servi la nation il aura servi la génération mais la communauté surtout que le sens social de sa de ses approches c'est un homme vraiment bu ñu war a ñaanal yàlla yàlla ko yàlla mais ñëpp a ko ñàkk ñëpp a ko ñàkk na ku nekk jàll sa man la Ibrahima Maar ñu gën ma xam si Ndaw Maar euh, ma bokk ak Aline Maar kii taxaw nii di Assane Maar di rakk si moom man papa laa ci moom. Euh, Aline Maar nag moom nekkatul Aline Maarum waa Maareen sax mais Aline Maarum Sénégal la ndax fii ba jag dañ lay woo di def témoignage si moom di wax ndimbal walla mbaax gu mu mosoon a séq ñoom ah, lépp lu baax wala ndimbal bu mu mos a si kaw suuf te sunu borom rek tax. yàlla na ko sunu borom fay yàlla na euh, bu ko cat jiitu si bàmmeelam en tout cas nun waa Marème vraiment ñu ngi am naxar ak waaye di nangu dogalu sunu borom ci li mu dogal ndax yàlla moo wax xalaxal mawta wal xayaat li yabluwakum ayyukum ahsanu amala dama bind dee ba pare soo ko bind dund kon nag sunu borom moo ko andi woon moo ko jëlaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla sunu borom moom fi ko andi woon ah, yàlla na ko xare aljana firdawsi incha allah loolu daal lañ fi doon yàlla sant yàlla ji nag mooy nit dina am ay doom yàlla def ay doomam yàqu nit am doom nekk doom di ñuy tiituru bësu tey jii bésu tey jii bésu bànneex la su ñun ak bésu sant la ñun ndax yàlla sunu boroom moo jël doomu Tëngéej ku ñu naan Alioune Fall Mar def ko muy doomu Tëngéej yàlla dogal Alioune Fall Mar nekk nit bi nga xamante ne nii ku amoon njëriñum njaboot ndax ñu ko tudde woon am baay jàng amul baay jàng loolu mën naa finna lépp ndax doomu Adama Njaay ku ko jël xam ne ay waajuram amuñu luñ koy fayalee jàng nga defal ko xam-xam xam-xam boobu mu jël ko jëriñoo ko ba ay njabootam di si jël si wërsëgam si jàng jooju loolu jixaat la Alioune Mar nekk na nit bi nga xam ne boo doon yëkkati tey ba suba ébeeke eh alors sa kàddu du jeex Alioune Fall Mar defar na hôpital yi Alioune Fall defar na waa na dimbali na waa ay dëkkam waa Jokkul te Alioune Mar mooy nit ki nga xam ne bu doon jàppale doomu aadama Ndiaye nit mënul fexe bu mu xam teraanga ju ma sëq ak nekkoon na si baaxam jëmm ji nga xamante ne nii ku mu wéetal di waxal da yaakaar na yow yow yaay Alioune Fall Mar Alioune Fall Mar defar na dispensaire yi Alioune Fall Mar na tali yi Alioune Fall Mar na tant Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Alioune amul xajjax Tiwaawan Njaasaan Touba Thiénaba moom képp taalibe axan la ñu ngi sant yàlla nag si mbaax ja nga xam ne mi ngi ko doon defal doomu aadama te doomu aadama mooy jëfu mooy li nga xamante ne nii mooy alalu yàlla si kaw suuf ku bëgg a defaraat yàlla defal ko si kaw suuf lii nag jàngat la si doomu aadama yi jàngat la ñun ñi nga xam ne ñu ngi def politique ñu war a xam ne àdduna yàlla dañu fi jaarale te dañuy xëy bés dem ndax bakken buy dund ba jeex musuta am si àdduna ndax yàlla mooy joxe bakken yàlla mooy xëcc bakken xew-xew yi nga xamante ne dafa dal suñu kaw si ki nga xamante ne mooy monsieur le maire Alioune Mar mais aussi damay wax ne mu nekkoon suñu lijaay ñun na kàdd yi ñu mën a seede si moom dañuy wax ne ñaari tànk lañ si taxawee benn bi si wàllu liggéey bi nga xamante ne moom lañ seqoon si maire bi dama ko xëy mu wax sama dernier conseil bi ma participer ak moom ma ne que peut duñ mënuñu laa wax lépp mais ñu ngi ubbi suñuy bët di la xool di xool ni ngay doxale ñu nekk ay ndaw aussi di jàngat maanaam si façon bi nga xamante ne moom ngay gérer le conseil municipal wax naa ko koroog bi sama waajur génnee àdduna ñi fa ñëwoon doon ñu si ñëwoon doon ma jaalse ma ne leen tey soo xoolee conseil municipal bi tey ñu ñëpp une famille lañ maanaam dañoo bokk ndey bokk baay boo ñëwee mënoo xam kan moo àndoon bokkoon APR wala kan moo bokkoon si beneen parti te loolu aussi su mënee nekk ki nga xamante ne moo nekk si bopp bi moo tax parce que su ñëwoon nekk ay conseil municipal mu nekkat bokkuñu woon lis du ñu boole si liggéey bi du ñu impliqué bu ko rogee amaana ambiance bi am si biir conseil municipal bi du fa am. mais ñëw na dajale ñëpp wuufu ñëpp loolu moom laa wax ne lu ma jàng si moom la beneen bi nag ma am occasion aussi ànd ndax moom tukki dañu que xam ne souvent nit balaa nga kaa xam ngeen ànd génn wala ngeen nekk ab diir may waxtaan ak moom si biir voyage boobu ma nekk monsieur le maire man de li ma jaaxal si politique mooy politique dafa bëri wor man est-ce ma bàyyi politique sax mu ne ma déedéet góor gi doo bàyyi. mu may nettali aussi ay relation ak ay nit parce que nekkoon nag nga xamante ne aussi yàlla mayoon nag maanaam su su amee sax lu ko naqari doo ko xam si moom maanaam ku ku muñ la woon mais aussi ku yaatu dënn la woon dañ koy ñaanal yàlla yàlla mi nga xamante ne maanaam mooy yërëm jaamam yàlla na ko yàlla xaare àjjana te gëm naa ne aussi tamit li mu doon sonn si nit ñi parce que aussi yéen sallallahu alayhi wasallam dañuy jàngal mu ne àllaaxira bokk na si ñi nga xam te ne dañuy ñëw maanaam ànd ak xol bu set pourquoi ñun ñi nekkoon ak moom di ko côtoyer loolu luñ mënoon témoigner si moom la woon maanaam xal xol ba nga xamante ne lu si kenn safaan tey damay wax ne Alioune Mar su ma nee nekk pendant presque quatre mandats mu koy nekk si au niveau de la commune de Rufisque Ouest te kenn mënul yëkkati sa loxo nga wax na ma lii publiquement loolu dama jàpp ne ñu fi bàyyi ay xale ay doomam ay jarbaatam loolu lu ñu si war a jàngate la maanaam politique warul nekk loo xam ne dañ ko war a utiliser mu nekk une arme moom dañ ci xeex suñu biir mais dañ ko war a def au service de populations te wax fa dëgg yàlla loolu la taxee woon ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm ñu jaale aussi tout le conseil municipal di jaale aussi sa famille biologique ñaan yàlla fu mu leen féete woon yàlla la yàlla féete foofu noonu yàlla na suuf sedd si kawam yàlla lu doon rëcc mu fa doon defee vraiment ñu ngi jaale ñëpp di leen remercier aussi la presse ba gis nañ ne depuis bi mbir mi amee aussi yéen a ngi taxaw di si bay seen waar man nekk mu woon Dakar mais tey suñ ko mënee yëg aussi en partie ba ñu koy jot faneen parce que presse bu ñoo si taxaw taxawaay bu rafet mais loolu gëm naa ne aussi relation yoo leen amoon ak moom la jiitu bés bi donc vraiment aussi ñu ngi leen koy jaale di ko jaale waa Jokkul yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw man la Mbaye Ciss sixième adjoint au maire la commune nekk un collaborateur de monsieur le maire bi nga xamante ne moom lañ fi jëlee di profiter de cette occasion di ñaanal di ko ñaanal fa mu jëm bu gënal ko fi mu jóge mu nekk nag un homme très ouvert un xam naa ñun du ñu saalit parce que yàlla boo ko wax wala wala nam lu ko bi shay'in la moo ñuy natt natt boobu xam naa bu bokkoon ne yàlla wax ko dinañ saalit parce que c'est un boo xamante ne du ma ne ñun commune bi ñoo perte ñun le bureau municipal ñoo perte wala conseil municipal ñoo perte mais c'est loolu daal mooy c'est une bibliothèque bu bu tàkk lañ ko mën a wax parce que c'est un homme qui a fait peut-être vingt ans ou vingt trois ans conseil municipal nekk vingt trois ans maire man mi lay wax ni son collaborateur j'ai fait quinze ans avec lui parce que commencé sama troisième mandat conseil municipal nekk adjoint maire ci mandat bi nga xamante ne ci lañ nekk kon naa mën a wax si moom si wàllu liggéey bi nga xamante ne moom lañ seq mu nekk ku bëgg Tëngéej nee naa dafa liggéeyal Tëngéej ba xëy dee parce que ñu fi gis gis nañ liggéey bi mu doon liggéey nous qui étions xam nañ ne mënul woon mais loo ko wax rek mu ne loo tëngeej tëngeej tëngeej kon danaa kon fu mu nekk ñëpp perte ñun waa tëngeej nañ ko ñaanal njaboot gi nga bàyyi ne moom la fi bàyyi nag yàlla teg si loxo nag yàlla teg si loxo euh, du ma ne ku ko mais yàlla teg loxo si njaboot bi nga xam ne moom la fi bàyyi. maire euh, de la commune d'arrondissement de Rufisque Est tey dañu ñëw fii di jaale si le maire Alioune Fall Mar a été le deuxième maire de la commune d'arrondissement de Rufisque Nord de Rufisque Ouest après Kora Fall Alioune Mar moo ñëw nekk maire de la commune de Rufisque Ouest ba tey jii la yàlla def mu jóge ci maire bi gënaluñu nag mais yàlla kenn du xëccoo ak moom euh, Alioune Mar bi muy nekk maire de la commune de Rufisque Ouest fekk na man ci mandat boobu ma remplacer le maire Pape Gora Faye à la commune de Rufisque donc amoon nañu une collaboration en tant que maire des communes d'arrondissement avec le maire de la ville d'alors Mbaye Jacques Diop mu nekkoon ku bëgg a Tëngéej ku social koo xamante ni lépp loo xamante ni amoon na ko jox na ko waa Tëngéej bu mu jeex tàkk nit la ku social nit la aussi ku respecté woon doomu adama sociale sax baax na mais respect bi Alioune amoon ci doomu aadama man loolu moom a gënoon a touché un mois avant que muy tëdd feebar nii gise nañu maak moom mu wax ma lu bari ci ay projet yoo xamante ni que am na pour notre ville de Rufisque loolu nag euh, nga xamante ni Alioune amoon na ko pour Rufisque yéene bi mu amoon pour Rufisque nekk benn yéene bi mu amoon pour ay doomi Rufisque nekk benn incha allah ñun dinañ ci taxaw parce que waxtaanoon naa ak moom joxoon na ma ay pis joxoon na ma ay pis pour que doomi Tëngéej nekk benn ndax ñu mën a gérer suñu ville loolu nag incha allah ak ñi nga xamante ni ñoo nekk fii yore ay ndombay tànk nekk Tëngéej incha allah dinañ ci waxtaan ak ñoom dinañ ci dox ak ñoom bu ko defee sunu dëkk bi ñu mën ko gérer nekk na daal nit koo xam ne kii toogoon naa une fois ak Mbaye Jacques Mbaye Jacques ko ci li nga xamante ni noonu la yore woon commune am nekkoon na aussi koo xam ne kii bi Mbaye Jacques di dund daawul def dara te du ñëw laaj ko xalaat ñu ngi koy jaal waa Tëngéej ñu ngi koy jaal njaboot gi ñu ngi koy jaal waa Sénégal yëpp waa Tëngéej daal ñàkk nañu koo xam ne kii pour remplacer ko du yomb loolu daal laa ni woon dinaa ko def comme témoignage ci monsieur Alioune Mar maire de la commune de Rufisque Ouest ma ne mar moom ay mbiram wax si moom yomb na nit ku baax la woon man mii wax dëgg yàlla fu ñu mos a daan naa ko jottali sax wax dëgg yàlla ak sama rajo bi ma tegee Rasulullah mu teral ma yàlla na ko yàlla xaraaje ne gën a kawe. Ah, àddina nag nii rek kenn dëkku fi boo gisee mbooloo mi teew nii lu xaw si dëkk bi dana teew dana fa jox alalam àddina nag yàlla li wax rek kenn dëkku fi yàlla na ko yàlla xaaj ne gën a kawe. man nag teral na ba tàyyi si Mouhamed maa ngi Modou mi toog wóor na ko waaw waaw yal na ko yàlla xaaj ne gën a kawe barke Mouhamed si barke war a dini bil xadaara bi musabiri ni ala balayka ya rahman yallaahu musi ane sukra man awle tey man jàll sanaaw ko ya rahman yallaahu daa wax seen sana ant rabbi ala nafsi wafir lana wali man min bay naa nasabun min ji ati dina aw dini yallaahu sali ala saagidin qabla rafa la sabin am yallaahu barke tey siir jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf nag gars yi nii la ñu amoon fii nii si kër Aline Mar fii si Rufisque Ouest gis nañu Aline Mar nekkul kese maire Rufisque Ouest kese maire maire adduna bi yëpp la mais nekkoon na koo xam ne nitu social la parce que gis nañu témoignage yi macha allah ku nekk témoigné na ko ñu ngi koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljanna ñoo ngi leen jóg dig daje ba beneen numéro incha allah fii sur la scène de l'élégance